Jules benn xarit la am mais Jules Jules dafa bëri xarit boo gisee ma ciy jooy mooy même moom bi muy gaañu bi muy feebar dëgg di gaañu moom moom ci laa comprendre lu tax moom mu bëggoon paaj moom man may ñafe moom muy dem parce que li ko dese woon ci dundam muy garab muy hôpital lépp maa ko doon def ci moment de période boobu mooy li maire bi wax léegi mu waaw mooy li sama yaay wax léegi muy dem hôpital ñu koy bindal ordonnance cent mille francs te boobu mënatul liggéey mënul def dara te gisul kenn te loolu il faut préciser Sonia Gilles a digne Gilles feebar na ay at xarit yi mu doon àndal ni mu ni mu ñi nga xam ne moo leen boste ba ñu am liggéey ñooñu tegatuñu seen tànk këram. man xam naa